acca bàkk ba jib na générique ba départ na jàngat làmb tàmbali na ak bàyyi jiili mbokk yi ñu leen di jëfal bu baax fépp fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safar wasaare làmb rawatina jàngat làmb bàyyi jiili mu ngi lay nuyu gën kaa kawe ci nuyoo gën kaa màgg ci nuyoo muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barkatu yi démb dafa nekkoon journée boo xamante ne journée bu neex la ci wàllub làmb ndax boo xoolee démb moo nekkoon le 21 novembre 2021 fële ci arène bu mag Ousin production moo fa organisé woon grand combat bi doxoon ci professeur maane ak saa ñàmbur mu nekkoon combat boo xamante ne vraiment ñaari combat xale la woon ak mag démb kii di professeur Mané rectifié na xale bi nga xamante ne mooy saa ñàmbur ginnaaw loolu euh, fële ca Adrien Senghor Jax production moo ñu fa woon mise bi nekkoon un million un million boobu moom la tegoon xale bi ko jël mooy Tmax ginaaw loolu yëpp dinañ ñëw ci jàngat bi. barastiku dem stade Iba Mar jam production moo ñu fa woon grand combat bi doxoon ci diggante Abou ñaase ak xale bii di Pape Ndoye mu nekkoon combat yoo xamante ne ay combat yu neex la ginnaaw loolu dañuy barastiku rek dem terrain gaal gi wala Adrien Senghor wan leen lépp loo xamante ne jot na fa xew ci cosaan ci aada ci làmb simple su ko defee ñu dellu si waat ci plateau bi ay ca aadama ñu dem ba tey ñu ngi ci bëre bi plaqué na daan na ko wala déet ndeysaan Caaka wër na ko laa ilaaha illallaah Caaka wër na ko ndombo ndeysaan daan na ndeysaan ndeysaan jël na tànk ba Ibou Senghor jël na tànk ba final la daan na ko Ngor Niakh dem na demi final final ba nar naa garaaw xale ba jëli na ko daan na Ngor Niakh daan mu daay ak Ngor Niakh Ngor Niakh ma la woon ginnaaw mu daay ka jàkkaar lool arbitre bi sifflé na ndeysaan daw na jëli ko Ngor Ñaax jàpp na da koy jëli Ngor Ñaax daan na ko laa ilaaha illallah Ngor daan na ko Ngor daan na ko oh Ngor Ñaax dem na final war jëli na ko dem bañ na loxoor jël na caxabal nañ dem dem caxabal na ko ñaxoor bañ na ña ngay bañ na ndeysaan na ko daan na dem si daan na ñaxoor ngoor ñaax X9 ngoor ñaax moo la féetee càmmoñ X9 moo la féetee ndeyjoor X9 moo ngemboo ngemb 19 favori yu bari ci làmb ji moom moo leen daan Caaka Fay 19 a ko daan ndaysaan ki nga xamante mooy Ibou Senghor 19 a ko daan ñaax éliminé ay ndaanaan yu bari moom ci ko làmb gi ndaysaan ndaysaan ndaysaan gànja faama gànja faama nga ca kaw ma yëngal moom Gandia Fama ndeysaan ndeysaan Gandia Fama ngi noonu jëli na ko jël na ko daan na Ngor Niakh mbokk yi ñuy félicité waat bu baax a baax a baax xale bi nga xamante ne mooy X9 démb moo jëloon Adrien Senghor un million yi Jax production teg waat na beneen xar kanam moom xale boobu di X9 ñuy encourager bu baax euh, ngóor ñaax mi nga xamante ne ndaanaan la ci làmb compétition bi mu amee ba léegi mu ngi doog a daanu démb ndaanaan la moom it ñu koy wax démérité wul parce que def na li mu waroon def di félicité wala di encourager caaka fay démb daanu na jël bu ko bett mais làmb noonu la caaka ku ne xam na ni ndaanaan la ci làmb vraiment dafa yegg xale bi fu sori xam naa ni bàyyiwu ko xel xale bi bëre daan ko loolu nag compétition la Euh, di di di di encouragé waat euh, Ibou Senghor Ibou Senghor moom it ñëw na ci compétition bi wane na boppam waaye gis nga ni ko xale yi démb éliminé muy démb kon favori yi ñu yaakaaroon ci làmb yépp dañ leen a te làmb simple noonu la en général ñi nga xamante ne ñooy favori d'habitude moom la ñuy jàpp ne ñooy génn mais jour boobu ñoom ñoom ñoom la ñuy éliminé ci biir compétition bi boo xoolee euh, xale bi di ngoor ñaax demi-finale bi mu daan gis nga bi muy bëree xale bi ni mu ko daanee arbitre bi sifflé na mais xale bi bàyyiwul ni xel ni arbitre bi sifflé na mu ngi bind eh, ay ay bindam ci suuf ngoor ñaax daw sàcc ko bëre ko li leen wax ni làmb noonu la làmb des fois da ngeen di lire arbitre bi parce que yaakaar naa bu ngeen bëree bu arbitre bi bu ngeen di sifflé da laaj pare nga pare nga doog a sifflé mais bu action amee ngeen génn saako yi bu ñëwaatee arbitre bi du laaj ba xam pare nga bu ngeen ñëwee ci digg géew bi rek day sifflé bu siflee ngeen daje kon mbër yi war nañu bàyyi xel ci loolu ginnaaw loolu dañuy dem fi nga xamante ni mooy stadium Iba Mar dox combat bi doxoon ci diggante euh, dox ci diggante Abou Niasse ak Pape Ndoye jam production moo ko tëgg ñu wan leen lépp loo xamante ni xew na fa ci ambiance xew na fa ci cosaan xew na fa ci aada su ko defee ñu ñëw ci plateau bi ay ca ñu dem si kanam dina leer léegi ni ma waajee si kanam dina leer léegi. mais dañoo gis adversaire mu mel ni ko xaw a wàññi poids. loolu concerné ma en tout cas du xeex du bëre lu mu def ma noq ko daan ko si kattanu yàlla. da nga koy duma. duma ba pare daan ko si kattanu yàlla. est-ce que loolu dina yomb. yàlla. nii rek. ñaan yàlla may ñun dam sutura ñu comme ni ñu ko daan maye. min nañ fi fii min nañ ko. préparé leen léegi léegi léegi léegi mu leer. dina am bëre dina am xeex. nuyu naa la. fay naa la. ci loone sant yàlla bu baax alhamdulilah. naka ngeen andee Pape Ndoye. déggu ma. naka ngeen andee waaw waaw indi nañ ko rek comme niñ ko doon indee si làmb rek. di ko ñaanal yàlla yàlla may ko ah. waaw dama gis ngeen waañu poids bi lu waral lool. waaw combat la combat la moo tax xama làmb léegi moom. foo la mooy loolu ko quoi. combat la combat mbokk yi gis ngeen ko mu nekk combat làmb joo xamante ne vraiment dugg si nañ rek ngeen gis ambiance bi fa am xam ni làmb ji dina neex ndax làmb combat espoir la Pape Ndoye doomu Fass la faas lay ware abu Niasse doomu jàmm gën la bu jugee tarkindaa yëpp dañuy topp ci ginnaawam ñoom ñaar ku ci nekk tuus na gis ngeen li nga xamante ni wone nañ ko ku ci ne indaale na ndam ci biir làmb ji waaye nag làmba ngi noonu lu muy gën di guddi benn mbër mi di gën di am confiance beneen mbër bi di gën di ñàkk làmbam loolooy làmb ndax làmb la tudd ñaari ndamay dugg waaye benn mooy génn dañ leen di wan combat préliminaire yi euh, su ko defee ñu dellu siwaat ci plateau bi ay ca ñu dem xool combat yi Bébé Siteu Babsi VIP

serpent la ñu jàkkaar lool Paul serpent Siteu bu Paul danga koy bëgg a bëtt bañ Siteu bu Paul danga daanu Siteu bu Paul danga daanu Siteu dangay forcer làmb kenn ko forcer combat bi dox ci diggante Alliance Baldé Sibor Alliance Baldé moo ñu féete droite Sibor moo ñu féete gauche Sibor Alliance Baldé eh kal na ko kal def am nañu daanu jugaat ku daanu ku daanu Alliance añ ko kal ko Alliance Baldé daan na Sibor Alliance Baldé ci combat bi nga xamante ni mooy Siteu bu ak Franc Mbeur ngi noonu ci diggi géew bi Siteu bu Ngor Franc Mbeur féete à gauche Siteu bu féete à droite na ko wet ga bul génn bul génn ngay bëre waaw waaw daanoogul daanoogul daanoogul daanoogul Siteu am benn avertissement su génnaatee mu jeex su génnaatee mu jeex na. mbokk yi gis ngeen combat yi nga xamante ne jot na ci xew mu nekk ay combat yu neex combat espoir xale yoo xamante ne ku ci nekk wane na ngar mi ak njàmbaar ak fulla ak ndam na yàlla moo ko moo ko yor may encourager xale yi nga xamante ne daanu nañu ci ñoom ñëpp maa leen encourager di leen wax ni làmb noonu la. di félicité képp koo xamante ni am na ci ndam ci journée bi démb ñuy ñëw ci combat spécial bi doon combat boo xamante ni ñëpp ko doon xaar ndax ci diggante Mamor bu Faas ak Cheikh Super Jamono. def nañ signature contrat daje arène nationale ñoom ñaar xas-xas loo ku ne simmeeku wane sa moroom ku ne wane ni da ngaa xiif sa morom looy bañ mu xew nag wala looy bañ mu yegsi bul ko jàppal bés àpp ba jot na dañuy dem xool diggante Mamor bu Faas ak Cheikh Super Jamono fu làmb ja mujj. arbitre bi sifflé na Cheikh Super Jamono Mamor Cheikh moo féete à droite les tigres Cheikh Super Jamono kër Mansour Mansour ay ci biir tekki xale yi balaa ngaa def waaw xam nga loolu yow dëgg bi daa mel ay fi ay yow ay Mamour Mamour Cheikh Super Diamono ñoo ngi jàppante eh Cheikh Super Diamono daan na Mamor Cheikh Super Diamono na ko war na ko ndomba war na ko ndomba Cheikh war na ko ndomba Cheikh Super Diamono Mamor eh, daan na ko Cheikh Super daan na Mamor Cheikh Super Diamono daan na Mamor Cheikh Super Diamono daan doyalagul Cheikh nee ko doyalagul kaay. mbokk yi gis ngeen combat boobu dox ci diggante Cheikh Super jamono ak Mamor bu Faas may encouragé waat bu baax Mamor bu Faas di féliciter Cheikh Super Diamono di wax ni que ni làmb ji wane na ni am na am na ci cër wane na ni ku mënul daan ci làmb amul. wane na ni defet yi mu amoon wala defet bi mu mujjee am arène nationale jàppewu ko muy defet waaye defet la boo xamante ni defaraat na làmbam defaraat na yoonu làmbam moom Cheikh Super Diamono di ko félicité bu baax li waroon def ci làmb ji yëpp def na ko bëre na ni ñu séentoon ni noonu la war a mën a bëree am na ci ndam wanewaat na mu ngi dox ay jéego jëm ci kaw ñu koy félicité bu baax di encouragé Mamor di ko wax ni Mamor làmb noonu la waaye nag làmb day wor bu ëllëgee boo amee komba li ngay wax ci signature ba ak na ngay bëree du doon benn jàppoon nga ni yaa mën Cheikh Super Jamono ndax dama jàpp ni est-ce que Mamor bu Faas xamoon na Cheikh Super Jamono bi mu jël ndax Cheikh saa su ne mu lay bëgg a wan boppam ci signature yi mais staffam dañu koy téye keroog gis naa ko Père jiili maa ngi koy nuyu bu baax Père Djili Wade bi ngeen def face to mu simmee ko bëgg a aaloog yow Père Djili daf na ko lan laa la waxoon kon wane ne ni ko yàpp nañ ko ni ko avant muy ñëw ci làmb ji xam nañ ne ko Mamor da laa bëgg a déstabiliser pour am li mu bëgg te bul ko ko may. bu ëllëgee boo ñëwaatee ci làmb xëy na defet moo ñëw moo tax yu baree bari dañ koy mën a gis di wax Mamor rek mu gën a defaruwaat ñëwaat ci làmb ci làmb la bokk moom day neexal làmb li ñu soxla ci signature da koy def day jaay làmb ba mu mat mais nag ndam daanu ak daan. loolu ci loxoy suñu boroom la nekk ñuy ñëw ci grand combat bi doxoon ci diggante Abu Ñaase ak xale bii di Pape Ndoye ñu wallee ñoom ñaar ci digg géew bi seeni débat dépp ñëw ci grand combat bi ay ci aadama ñu dem te ñëw ñaari mbër yaa ngi noonu ci digg géew bi Abu Ñaase Pape Ndoye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 protège Dame wadd na Abou Niass Abou Niass Pape Ndoye eh lu muy xeexee ni Abou Niass lu muy def nii ñoo ngay demante baaraam Abou Niass Pape Ndoye mbaa duñ ci kenn mu daanu Abou ñaase lu muy def nii Abou ñaase lu muy def ni laay Abou Niass Pape Ndoye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 ay ca mbokk yi gis ngeen combat bi doxoon ci diggante abu ñaase ak Pape Ndoye vraiment mu nekkoon combat bu neex mu nekkoon combat boo xamante ni combat espoir la ñaari xale yi ku ci nekk boo daanee làmb ji dafa am fu mu la war a mën a yóbbu muy Pape muy Abou Niasse ñuy am benn seetlu rek boo xamante ni gis nañ ko ci làmb ji mooy Abou Niasse xàmmewuñu ko démb ci làmb ji xàmmewuñu abu Niasse ndax abu Niasse bi ñu xamoon ci ci ci ci mën a xeex ci mën a bëre ci am jom ci ci ci mën a faayit ci làmb démb gisuñu abu ñaase carrément abu xamuñu lan la mais démb xàmmeewuñu la vraiment bi nga simmee koo gis nañ état de forme bu jaar yoon làmb ji liggéey nga ci entraîné nga ci macha allah kenn du ne abu ñaase jàppul ci làmb ji respecté nga adversaire bi ndax indi nga mystique bu doy mais ci biir bëre bi dafa am erreur yooy def abu tànk bi ngay teg mënoo koo xeexee musuma gis ci làmb kuy dóor boo xàccee kuy du dóor di changer beneen pie di ko indi di xeex parce que moment boobu dangay ngay woyof Pape Ndoye ragaloon naa ni bi nga ko njëkkee def ragal naa ni boo ko defaatoon day daw jëli sa tànk. parce que tànk bi nga ko tegal mu jël ko du sa foor munoo tànk boobu moo tax bi mu ko jëlee automatiquement bi mu la yëkkatee da ngaa jóg mu daan la jël bu rëy làmb nag boo juumul doo daanu mais tànk d'habitude coach yi dañ leen war di jàngal tànk bi nga xamante ne moom ngay samp saa su ne nga ciy fexe di ci jàng xeex parce que làmb bëre dóor la ñu wax waaye di dóor di changer pied di dóor loolu vraiment bokkul ci loo xamante ni tey bu ñu ko gisee sax dañ naan Abou Niasse mi euh, ni façon bëre bi muy bëre ñu bari ci làmb laaj nañ lan moo waral Abou Niasse di bëree nii. ñuy féliciter Pape Ndoye bu baax di ko wax ni ndeke defet baax na ci mbër defet bokk na ci liy defar mbër. sa diggante digganteeg Jackson stade Jom Iba Mar la woon da ngaa ñàkk da laa dóor nga daanu mais démb bi nga ñëwee ànd ak Lagros ànd ak waa Fass euh, gis naa fa Gris 2 gis naa fa Serigne Ndiaye 2 gis naa fa ndaanaanu Fass yëpp ñu ñëw boot la combat bi teg nga ko ci yoon. jox nga adversaire bi cër ba bëreeg moom daan ko jël bu amul benn werante ñu lay félicité waat bu baax yow Pape Ndoye di félicité écurie Fass di félicité promoteur bi nga xamante ni tey moo waraloon bis bi muy jam production. mbokk yi di leen wax ni jam xale la waaye xale bu am jom la li ma doon wax jamaïcain xale bu am fulla la xale bu xam li mu bëgg la bi muy dugg si ci làmb ci fans club la commencé doon fans club Modou Lo bokkoon ci fans club ba daan ko jiite rajo bu ne nga dégg fa jamaïcain di woote jamaïcain moomu tey moo dem ba yor licence promoteur di tëgg ay mbër tey suñu njort dem na ba ci Modou bi nga xamante ni moom la doon topp ci làmb mu tëggal ko làmb mu bëre loolu nag jom la ak fulla ak fayda ñuy am lu ñu metti lool ci làmb ji démb di ko ñaawlu di ko ñaawluwaat encore une fois muy parrain bi ñu tuddee bis bi te gisuñu ko muy laat Diop metti nañu trop képp ku nekk ci làmb démb am nga mettit mettit bi nag mooy gis nañ ni yëguñu làmb tey fii képp koo xamante ni yaa ngi ci réew mi bëgg bëgg visibilité bëgg àdduna xam la da ngay gestu mbëru làmb yi yaakaar naa ne wolof daf ne ku la abal almet ba tax nga boyal bu la ñaanee xal boo goree nee ko tibbal ñoom ñëpp président Macky Sall moo leen def li ngeen doon. kon tey bu ngeen nekkee jeune boo xamante ne xale la mu nekk ci jeunesse mu nekk te yéen seen mbébét bu njëkk mooy jàppale jeunesse bi mu nekk jeune tëgg bis tuddee leen ko ñu dem ba dernier moment man jokkoon ak promoteur bi. biñ ne combat bi des na quinze jours loolu yëpp pour leeral rek pour wane ni am na lu ñu metti ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo bokk ci làmb bi làmb ji desee fukki fan wala euh, fukki fan ak juróom promoteur bi daa ñëw ci man am ñoo xamante ni dañu ko woo ñi nekk ci Lat Diop ne ko journée bi ñu tuddee Lat Diop dafa ndaw bu ñu sañoon nga dindi journée boobu tur bi nga ko tuddee wax jooju dafa ñaaw ci deru Lat Diop loolu dafa ñaaw ci ñi nga xamante ni ñoo ànd ak Lat Diop ñu di ko yëkkati journée boobu dafa ndaw journée Abu Ñaase ak Pape ndooy mooy journée bu ndaw journée boo xam ne 16h bi mu jotee tëj nañ arène euh, stade Diom Iba Mar ba promoteur bi daa mujjee woo morom nawleem promoteur bi yi mu deseloon la ko mujjee jox mu di ko jaay presse bi ñëpp ñëw. parrain bi ñu tuddee bis bi gisuñu ko ci làmb loolu nag man woo naa waali euh, waali bi nga xamante ni mooy waali Njaay bu laat Diop woo naa ko téléphone wu expliqué ko cas bi avant dix jours avant mu ne ma loolu dinaa ko lijjanti woo naa Papa bu Laat Diop moom it expliqué ko cas bi ñoom ñëpp ñu ne dinaa ko lijjanti dinañ la woo ba léegi revenir ñu ci ñun. ñun nag ku jàpp làmb ñu jàpp la ku jàppul làmb yëguñu ni sax yaa ngi dund ndax ñun làmb rek lañ fa am yaakaar naa ne kenn yoru suñu wërsëg yàlla suñu borom rek moo yor suñu wërsëg tey nag am nañ lu ñu metti trop trop trop ci ci làmb ji démb ñu tuddee ko parrain bi yegsiwul mbokk yi di jaajëfal bu baax jam production di kontaan ci moom. di ko wax ni mu gën a góorgóorlu di ko wax ni lii du dara ci làmb pare bi ñëwul mais teewul bis bi réussir na fi ñu ko njortoon ci làmb weesu na fa di leen jaajëfal bu baax mbokk yi di leen jox di daja encore une fois euh, jàngat làmb la woon bàyyi jiili ma ànd ceeg aadama sama cadre la cadre des cadre di ko jaajëfal bu baax a baax a baax di jaajëfal ki ma génnee fii di noobul sama waa ji nga xam ni saa su ne moo may sponsorisé di ma solo yëre yu rafet yi mu ngi nekk parcelle Assainies unité 4 en face cinéma unité 3 numéro noble di 77 707 00 06 10 di ko jaajëfal bu baax Serigne Saliou di ko wax ne fi mu ma génnee macha allah tarka la di leen jox di daje ba ëllëg incha allah ci beneen jàngat làmb bàyyi jiili aadama di leen jaajëfal ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.